muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne Tawfekh Sëñ Tuubaa rek am solo. sëñ bi ba léegi eh, ni nga ko waxee noonu ci eh, tarixa yi nekk ci réew mi ñoom it daa mel ni amoon nañ taxawaay bu am solo ci ci ci ci màggal gi nga xam ne tarixa bu nekk ñëw nañ laatay màggal gi ànd ak sëriñ bi màggal gi ba ba ba ni màggal gi àggee. délégation yi nga xam ne moo jógee ci kër diine yi. kër diine yi nekk Sénégal. jege na téeméer boo ci boole association islamique. maanaam genn kër gu mag desu jóge nañ sax ba Mauritanie dikk teew si. li nga xam ne ñoom lañ noonu lañ tolloon ci ay ci ay nit aussi jege nañ ñeenti téeméer. waaw ñoom boo xoolee ñoom ñoo daloon ci kër Sëñ Tuubaa yi ñoom aussi délégation bu ci nekk am na jataay bu yaatu. ak Cheikh Mamadou Mountakha. suñ Bass itam guddig màggal gi ñoom ñëpp dem na saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ndax délégation yëpp dañuy dañuy daje ci kër Sëñ Tuubaa dañuy daje salle bi ci salle mag bi dañuy daje ñu def waxtaan daaru maanaam aussi dañuy daje ca salle de conférence ba ñu def ñu def waxtaan parce que seen taxawaay dafa rafet mm-hmm. te dañoo bokk ci gan yi nga xam ne ci gan ñi gënul sëriñ bi lañu te ni ñu dikkee boo boo leen dee gis ñu ñu ñu jël kaddu euh, ci conférence bi raw duy def bu ñu waxee rek da xam ne ñii yéene ji nga xam ne am nañ ko ci ci bis bi da dañ ñoom ñëpp dañ ko jàppee seen seen yëfi bopp nga xam ne kon day day mel ni sax même buñ ko tijji woon cent pour cent wala ne képp ku bëgg a dikk dikkal la nga xam ne moo fi dikk ci ay délégation duñ ko duñ ko àttan waaye loolu dañuy yokk rek ndànk-ndànk incha allah lu lu dal di gën a yokk délégation yi di di gën di bari ndax ñëpp bëgg ak lañ foo xamante ne bii màggal gi ren ma màggal gi léegi kenn bëggatu koo kenn bëggatu koo wuute. gi kenn bëggatu ko wuute ba tax na ay doomu aadama yu takkoo takku ñoom ñooy ñëw ci dëkk bu sell bi Touba ngir teewee bésu 18 safar googule ñu am mbégte nag di dalal ci plateau bi Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé ma mi jiite. commission culture ak communication bu grand magal euh, bu Touba ci jotaay bi nga xam ne ñu koy amal di def xayma ci màggalu Touba gi ñu euh, génn rek sëriñ bi mu mel ni màggal gi euh, li ñu ko waxee sànq rek lim bi ñëw bëri na waaye des fois ñu nemmeeku ne da am na dina am ay accident ba des fois am ñoo xam ne dañ dañ ciy dañ ciy loru sëriñ bi ren donte accident yi mën nañ ne wàññeeku na par rapport ak at weesu lan nga jàpp ne suñ ko defee accident yi dana gën a mën a wàcc nit ñi di ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci màggal gi. waaw foog naa loolu ñu ngi ci aw ñu ngi ci aw yoon ci wàllu sécurité bi ndax ren boo boo seetloo ñun dañuy teel a màggali waaye am na ñoo xam ne ñëw nañu mais dañuy wax ne ñu force de l'ordre yi dañ doon nekk ci yoon wi di obligé oto yi ñu daw ndànk loolu jàpp naa ne ci li wàññi accident yi la bokk. Euh, beneen cause aussi accident yi donc loolu mooy vitesse yi mhm. beneen cause aussi mooy màggal bu bu ñëwee oto yëpp ay génnandoo ku denc sab oto sax nga ne peut-être at mépp dawloo ko màggal da nga koy bëgg a génne waaw loolu aussi foog naa ne loolu nag bu fekkee da nga koo génne fekk gaaloon nga ko lu yàgg wala xañ ne oto bi aussi musta gé daawul génn euh, dëkk ba nga xam ne fa la dëkk nga bëgg a xëy daawul ko deux cent trois cent kilomètres mën naa man naa indi ay jikko hmm. jikko yi day daal di feeñ hmm. loolu aussi foog naa dina am loo xam dina ko yokk ci accident yi kon oto yi gën a baax jàpp naa ne dana wàññi accident yi hmm. ñu gën a fonk visite technique yi dina wàññi accident yi ñu gën a fonk aussi pneu yi nga ne kenn ku nekk balaa si oto ñëw ci màggal nga def ko révision ba mu leer na oto bi eh, mucc na ayib ngir man a def deux cent trois cent kilomètres dem Touba aller retour te nga euh, daw ndànk kon jàpp naan mesure yi bu ñu ko defee boole ci nag boole ci nag ak itam euh, dawalkat yi di dallu dawalkat yi di dallu parce que itam boo bëggee def Dakar tubaa aller retour ñëw dikk ñëw dikk ñëw dikk nelawoo noppaluwoo te nit du machine da ngay dem ba boo moytuwut mën ngaa nelaw ci yoon yi wala nga sonn wala nga mm, ma ngi noonu su ko defee day indi day indi yeneen jafe-jafe kon loolu sur nombre bi itam nag moom itam day day indi ay jafe-jafe mm-hmm. ah ñëpp bëgg ñëw ñëpp bëgg ñëwandoo waaye loolu sur nombre boobu li ko mën a wàññi rek mooy oto yu baax yi gën a bari ndax day mel ne oto yi doyuñu ngir transporter nombre bi nga xam ne mooy dikk Touba kon day mel ne bis boobu faw nit ñi def sur nombre te bis bi nekkul bis boo xam ne xaj na force de l'ordre yi dañuy dañuy mën a téye oto yi di leen contrôler parce que loolu aussi boo ko defee daan kenn du agsi donc moo tax aussi nit ñi day am loolu ñoom ñoo ko war a xam kon nag euh, nañu nañu daw ndànk nañ fexe ba oto yi baax chauffeur nañu noppalu nañ moytu aussi surcharge bi ci biir oto yi lii buñ ko defee jàpp naa ne sunu borom mën nañoo mën nañoo suturaal waaye ren moom taxaw bi nga xam ne takk deri taxaw nañ ko ci yoon wi doon wax nit ñuy def ndànk dégg naa noonu lañ defoon loolu tax na ba accident yi wàññeeku na donte nag am nañu ci loolu ñu di leen ñaanal yàlla tey tey jàll seen bokk. sëñ bi wax nga sànq nee nga lim bi ñëw Touba bëri nañ bëriwaay boo xam ne oto yi sax du leen doy gis nañu ren train bi ñëwaat na Touba ginnaaw ay at yoo xamante ni toogoon na ko ñëwut nga jàppoon ne suñ dolli woon train yi loolu dana ko mën a saafara. dama nekk solution. mais mais ren train bi 4000 personnes la ñu indi xam loolu dara. 4000 ci ci presque 6 millions du dara <laughs> loolu ab tàmbali la kon tey ji train yooyu bu yokkoo parce que parce que dañ dañ lay wax ne la tukkib saxaar foog naa ne mook avion mu mooy sécurité mm-hmm. kon tey ji bu train bi yokk woon mën a indi lu bare bare bari ban fexe ba mën a indi genn wàll nit ñi accident yi dana wàññi ku bu baax mais ñoom def nañ effort parce que ñu bari jàpp nañ train bu dikk feex nañu ba dawal ko ba mu dikk Touba. te bi mu jàllee maa ngi maa ngi maa ngi leen gis ñu naan nag fi ne amatuñ droit taxaw kon day mel ne ci njabar googu gi nekkoon ak effort yi nga xam ne def nañ ko ba indi bi day mel loolu dañ ko bëgg a continuer. waaw ni ni ma dégg ñu wax ko day mel ne ñoom loolu loolu mooy bëgg tax ma train bi day euh, day symbole. Euh, ndax train bi jàppal euh, ci liggéey jumaayu Touba bokk. ndax tronçon bi nga xam ne mooy Diourbel Touba loolu day daa bokk ci bilan daa bokk ci bilan liggéey jumaa ji tey ji bu ñuy xayma xaalis bi ñàkk ci jumaa ji tronçon boobu Cheikh Cheikh Moustapha def ko dañ ko jar boole ndax bu amutoon jumaa ji du taxaw ndax dafa nekkoon condition ci liy liggéey jumaa ji ci ay matériaux mën a agsi kon loolu aussi da daa am benn symbole boo xam ne am na dafa amoon dafa nekkoon ndamul yoon wi ba ba ca booba sëñ Modou da caa dugg ànd ak euh, Abdallah doomu Cheikh Sidiya ak yeneen kilifa ak gouverneur général ñoom ñëpp tey boobu yooyu ki duggoon ñëw fu gaar bu mu àgg taxaw kilifa yi dugg bañ ak si Touba ñu wàcc ci gaar bi dox wutal Daaru Xudoos loolu dafa nekkoon ndamul yoonu murit kon nag loolu waruñoo seetaan aussi muy muy taxaw loolu aussi di wane euh, ni nga xam ne aussi yoon yi noonu la tàmm liggéeyee nga xam ne maam gàllankoor buñ ko bëgg a teg rek dana jóg ci ak xarañam ak ci pas-pasam teggi ko ba gàllankoor googu moom bu soobee yàlla day féete moo tax biñ ko nee train mënut a ñàkk ndax bu train amut matériel biy dikk ci jumaa gi duñ am lu ko indi mu ne ay ca bisimilah nit ñaa ngi fi te pas daa ngi kilifa gu nekk joxe mbooloo mu yàlla di tabax ñu yàlla defar raay bi matériel bi dikk ñu commencé jumaa ji kon dafa dafa nekk lu am solo ci màggal gi train bi wëtt wëtt yam ci màggal gi war nañoo fexe ba aussi aji mu jot ñi xam ne bëgg nañoo dikk sax ñu wutal leen train boo xam ne dinañ indi Touba te te te foog naa bis bu bis bu meleen nam war a mel gis naa ko rafet na trop am na première classe am na lépp climatisé rek lépp am wi fii loolu foog naa ne nit ñi buñ ko xamee dana bari ñoo xam danañ bàyyi seen oto jël train bi dikk julli juma wàññeekuwaat te daanaka du am du am benn ndax dafa lay noppal fi mu doon boo tukkee boo tukkee bitim réew même fooy dem train ngay jël ndax moo gën a gaaw. sëñ bi ñu mu waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, taw bi ak inondation yi ndax gis nañ ne màggal Tuubaa ren wala at yi sax la ñuy wax euh, dafay tombeek nawet mu mel ni ndox mi ren bëri na lool bëri na ay wax yoo xam ne ñu ngi doon jóg ba nga xamante ni sax am na taxawaay boo xam ne état bu Sénégal euh, ñu ngi koy taxaw ci dëkk bi keroog Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Khadir mi jiite comité d'organisation màggal gi mu koy leeral. muy 45 milliards yi nga xamante ni état bu Sénégal euh, jot nañ ko def ci Touba mu jëm ci wàllu assainissement bi tey ci wàllu assainissement la ñuy wax mu jëm ci Touba fan lañ ci toll ak lan la ci état bi war a def ngir mën a saafara la jafe-jafe assainissement Touba. waaw xam nga euh, assainissement Touba dafa dafay dafay lu bari ndax bekkoor daa amoon ci réew mi à partir de 1970 ba 2000 Sénégal li mu taw bariwul. mooy at yi nga xam ne day day dem ba wax set bët du sëb am na fi ay 97 96 yooyu rek ñun ñëpp ñu ngi ko fàttaliku day dem ba wax set du taw wax xam ne ñëpp dañuy jaaxle euh, diggante boobu àll bi metti yëf yi tar mu am lu ñuy woy exode rural parce que baykat bi bu nekkee ci àll bi te bayatut kon amatul lu muy dunde def fa dara kon jóge ci àll bi toxu ci taax yi ngir man fa yaxantu day dal lépp intérêt ci moom diggante boobu ñu bari ci lañu ci lañ ci lañu tuxoo ñëw ñëw dëkk si Touba diggante boobu itam boo seetloo ci fin anne quatre-vingt jàpp année quatre-vingt-dix yi ñu bare bari dañoo génn réew mi dem Italie dem France France yàgg nañ faa dem mais surtout Italie anne yooyu la xewoon ndax boobu aussi visa yi xawoon naa yomb waaye ku génn rek la nga njëkk a def mooy tabax kër Touba tuxal fa tuxal sa njaboot loolu tax ba dëkk bi fees comme bi ñu ñëw nag fekk na ñu nekk ci bekkoor doo tiit fu taa doo tiit fu taw nit ñi fu gën a jege rek mbaa fu gën a jàppandi rek ñu def fa kër daal dafay dëkk fekk te foofa da caa bari barab yoo xam ne ay barabi ndox la biñ demee rek ba cycle sécheresse bi jeex ba taw bi commencé waat à partir de des années 2000 taw bi commencé bari jafe-jafe daal di commencé juddu kon lu ko jiitu Touba soxla wutoon assainissement ci ni ñu ko gisee woon nekkutoon en tout cas jàmputoon la fa amoon ci assainissement sëñ Saliou moo ko fa defoon bi jafe-jafe commencé juddu président la Wade commencé assainissement Touba ba liggéey si loo xam ne war naa toll ak juróom-ñeenti milliards di tax ma ne man la juróom-ñeenti milliards mooy président Macky Sall ñëw bor boobu la fekk ñu amel ko enaan Chine mu liggéey ko te fayaguñ ko nga xam ne booba ca lañ ko fay continuer liggéey bi booba nag assainissement bi day daal di jàmp ndax ndox mi dellusiwaat na nit ñi dëkk nañ ci barabi taw yi assainissement léegi mënatu la ñàkk waaye fekk na Tuubaa la fa dëkk kenn xamul nu mu toll wax naa léegi aussi dëkk bi ni muy yokkoo kenn xamul nu mu toll magal gos yi kenn xamul nu mu toll kon jafe-jafe daal di commencé ñu commencé investissement yi ca loolu la ñu wax ne def nañ ba def fa quarante cinq milliards loolu boo gisee mooy bassin ya fa nekk muy la nekk Kër Ñang la nekk Kabbu la nekk Dar Rahman mooy mooy station pompage yi nga xam ne ma nga fa moom itam la fa nekk ci station pompage bari na donc loolu yooyu mooy investissement yi nga xam ne def nañ ko fa am na ci am na ci bus yoo xam ne dañ ko suul ci suuf muy euh, tiwo yi deux mètres sur la nit da ciy dox di dem donc loolu aussi manque fa ci investissement yi la bokk bari na foo xam ne danaa taa ndox tey jii boo demee doo doo fekk ndox Touba dañaa def plan Orsec bu tawee ñaari ñett ren amul plan Orsec daaw jéeg rek plan Orsec am na lu mis leen servir dikk bi mu dikkee ñu dirigence ñu def ñu ñu débloqué waat lu mat vingt trois milliards loolu mooy li ñu mujj def commencé waat liggéey yi am na ci am na ci tuyau yoo xam ne mooy tuyau bi bi jëm Daaru Rahman nga xam ne dafa dafa longe tali bi booba lañ ko fa dal def yokkaat capacité euh, bassin yi créé waat kër kër kàbbu mais aussi yokkaat yokkaat capacité de de pompage bi nga xam ndox mi ni muy dikkee ni muy génn dañ ko dal doubler kon ay liggéey am na fa ci fànn googu liggéey bu dee quarante cinq milliards euh, ñu def plan directeur de l' assainissement maanaam xayma assainissement dëkk bi lan la aajowoo loolu jàpp na cent soixante dix jàpp deux cent milliards mooy la dëkk ba aajowoo ngir assainissement bu baax loolu nag bu ñu fa defee quarante cinq ak ña koy def lu jàmbaare jàmbaare lu ñu góor góorlu mun a feeñ ndax ndax vingt cinq pour cent la vingt cinq pour cent la cinq pour cent mi ngi mel ne yow tey jii sa salaire ku ci daggoon cent quinze pour cent da nga xam ne fayuñu la loolu mm. dama jox rek misaal moo xam ne mën nga comprendre rapidement kon loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne mooy bi am Touba la nga xam ne moom la dëkk ba aajowoo ci assainissement moo bari te loola tànk defuñu ko ba mu weesu xaaj jàpp nag di yéeg jëm cent pour cent na mu war feeñe mënul nee feeñe loolu nag li koy saafara mooy ñu baral jéego yi yokk lañ fay def loolu ma ñaari solution yi donc baral jéego yi moo di ne ñu gën koo gaawal mais aussi nag yokk volume d'investissement yi fu ñu def set milliards dix milliards vingt tey ñu ne woon maa ngi jël ñetti at at mën nañ jël cinquante milliards def ci dëkk ba mu ñu ko defee ñetteel problème bi jeex loolu mooy importance su xayma yi ñuy def parce que bu ñu nee six millions dana fi dina ñëw Touba kon dañuy xam ne assi assainir dëkk bi mënut a ñàkk kon ñaari am na solution xam nañ fi ñu jëm xam nañ ni ñu war a def xam nañ ni mu toll solution mooy lañ fa war a def. nañu ko jël ñu def ko fa ci nu mu gën a gaawe ak nu mu gën a baree pour problème bi jeex ñëpp noppalu kon day mel ne bu war a def ñeent benn la ñu defagul kon dañu leen sant di leen gërëm mais nag di leen wax ne solution am na ndax xam nañ ni xam nañ ñi war def nu mu toll xam nañ ñaataa ko war a def kon solution bi ñaar rek la mooy jéego yi nañ ko nañ ko baral li ñuy def itam nag di ko defandoo muy volume d' investissement yi aussi na gën a takku nga xam ne kon lu ñu waroon def ci juróomi at mën nañoo lijjanti ba def ko ci benn at ñaare at gën ngaa bari ñetti at bu ko defee diir bu gàtt problème boobu dana jeex nit ñi kenn dutu jàmbat ñëpp danañ ñëpp danañ nekk ci mbégte ñu nekk ci ndox mi ñëpp aussi danañ ca danañ ci génn ndax ren ji góor góorgóorlu nañu góor góorlu bi moo di ne même organiser nañ nit ñi ci quartier yi tubaa dafa am yoo xam ne aussi ay association lañu nga xam ne naka jëkk dañ daan yëngu ci wàllu mbënd mi ñu jël ay moto pompe jox leen maire bi jël ay moto pompe joxe lool sax ma wàññi yëf yi nga xam ne dañ doon dugg ci koñ yi ak ci biir kër yi di pompe di di génne buñ ko pompee tur ko ci mbedd mi foofu aussi tegaat fa moto pompe yu mag ñu pompe foofa yóbbu ci réseau bi ah waa DPG yi ñoom itam jàmbaar lañu ñoom am na am na moto pompe yoo xam ne aussi andi nañ ko fa man foofu ñu nekkoon ci Touba moske kër ya fa nekk ñu màggal ko dese ñaari fan dugg nañ fa ci ay kër yoo xam ne lañ fekk ci am ndox kenn xamul nu mu toll daanaka seen borom ñenn ngi sax dañoo yéegoon ci kaw ñenn ngi dañoo génnul seen i kër waaye dañ ko pompe ba mu jeex takk ba mu génn malheureusement bi bi màggal gi ñëw fekk booba sax parewuñu ñu ne ma kat sëriñ bi fii bu ñu fi amoon juróom-ñetti fan danañ fi def liggéey liggéey boo xam liggéey bu rëy la mais loolu lépp jàngat lay doon ngir bu ngir bu benee ne danañu xam naka la war a gën a mën a mën a taxawee mais daal problème assainissement Touba moo di commencé nañu def nañ lu bari waaye li ëpp defuwuñ ko kon nañ bari di jéego yi nañ yokk lañ fay def. <laughs> sëñ bi mu mel ni euh, couverture médiatique euh, màggal Touba dafa nekk lu am solo loo xamante nii dafa intéressé médias yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal ak bitim réew yëpp ñuy ñëw di couvrir màggal gi gis nañ chaque année da ngeen ubbi benn plateforme boo xam ne ci la ñuy ngir mën a am accréditation. ren ñaata organe ngeen accrédité ci màggal gi ak ñi couvrir màggal gi seen xayma. li nga xam ne jot nañ ko man na mille cinq cent soixante deux demande junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak lu topp moom lañ jot ci ay demande ñu bëgg couvrir màggal gi ñu bëgg couvrir màggal gi ñoo nag ñëpp dikk parce que mën nañoo jox ñëpp ne leen dikk leen waaye buñ dikkee duñ am fuñ leen dalal te loolu aussi foog naa ne amul njariñ kon dañuy def euh, ab euh, dañuy ab sélection jël ña nga xamante ne bii buñ dikkee li ñu bëgg danañu ko am te itam ñoom du nekk ci condition yoo xam ne ñu metti la ñu jël ñooña di leen ñekke des nag danañ mën a màggal si waaye aussi buñ dikkee ñun suñu responsabilité si ñoom du du toll noona parce que aussi booy jël itam da ngay jël loo xam ne attan nga ko te te mille cinq cent demande xaw naa xaw naa jege dayoo te da ci am ñoo xam ne sax nag boo boo xoolee ba ci biir euh, daanaka duñ am droit sax ci def demande yu mel noonu parce que duñu am benn mandor ngay nekk journaliste wala benn mandor ngay nekk en tout cas bokk ci presse nga xam ne même boo leen ci presse bi waa presse bi ci boppam sax ñoom loolu du leen neex ci biir loolu ñun dañu yemale suñu yëf officiellement ci juróomi téeméer cinq cent jàpp nañ ne bu ñu amee cinq cent journalistes mën nañoo couvrir événement bi ci anam goo xam ne anam gu matal lay doon te ñun dañ leen mën a jël def ci ñoom la nga xam ne moo ca war ak lañ aajowoo lépp dinañ dinañ jégg nag 500 yi dañ dem ba 600 dem ba dem ba 700 loolu naka lañ koy defee ci biir 500 yi da ci am ñoo xam ne buñ dikkee duñu duñu dal ci comité d'organisation bi organes yu bari dañoo am ay njaatige biir Touba bu ñu dikkee dañuy dem ci seen njaatige dal ak ñoom kon ñooñu dañuy libérer ay place place yooyu ñu libéré nag ñun moom la jël nag jox ko ñeneen kon ñun danañ daloo cinq cent personnes mais ñiy accrédité dana ëpp cinq cent dana jàgg da dana mat sept cent personnes yoo xam ne ñoom la ñu accrédité jàppal ne cent yi duñ dal ci ñun cinq cent ci ñun lañu dal ñun ñëpp nag ñoom ñu couvrir euh, màggal gi euh, te loolu dañ cee dañ ko fonk ndax presse day partenaire ci li nga xam ne mooy li ñuy liggéey ndax dañ ne njàngalum sëriñ bi na tasaaroo màggal gi na tasaaroo communication bi na ci ñëpp jot loolu nag mënoo ko wax ba noppi di ginnaawal presse moo tax aussi presse ñu jël ko euh, def ko un partenaire privilégié lépp lu ñuy def ñu boole leen ci di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom te loolu am nañ ci yeneen xalaat yoo xam ne am nañ ko ba bu nee sax bëgg nañoo rencontrer même les patrons de presse defal ñoom séminaire Euh, waxtaan ak ñoom xool yan jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel bu ñuy bu ñu bu dikkee tubaa xool yooyu aussi yan saafara lañ ci euh, lañ ci mën a indi kon dañu bëgg partenariat bi dañ koy dañ koy gën di pousser am na même ñuy proposé naa nañu bu ay maison de la presse loolu aussi foog naa ne yoon wi àgg na foo xam ne war naa maanaam ay këri boppam yoo xam ne bu màggal gee ñu nekkat journalistes yi nañ dem ñu dal ci kër gee loolu aussi parce que sëñ bu joxe ndigal rek. yenn cheikh si mën nañ ko tabaxal fu mu bëgg ak ak nu mu mën a toll ci ci ci étage te dëkk bi noonu lay mën a continuer di di développé wu. beneen euh, beneen bi am ci presse bi mooy gis nga ne lépp dañ ko liggéey te amu amuñu ñoom benn contact lépp dafa jaar ci xarala yi loolu si nekk beneen innovation boo xam ne am na yow yaay dugg ci sa plateforme bi bind remplir. waaye boo dikkee danga fekk sa lépp noppi ñu jox la ko nga dem tey ñi nga xam ne ñoo gën a ci àdduna ci wàllu organisation ak wàllu naka la ñuy gérer presse bi ñenn def nu ko raw ñun noonu lañ doon def te loolu ñëpp gis nga aussi euh, cérémonie officielle gis nga bracelet yi ñu leen joxoon moo am ay QR code nga xam ne même day contenir ay information ci Touba ak ki sëñ Touba loolu lépp ay amélioration yoo xam ne def nañu ko te bu déwénee aussi danañ ko yokk bu déwénee même mënuñu dem ba carte presse yi ñu bàyyi ko def bracelet yi ndax moo gën a moo gën a jàppani moo gën ak jamono te tamit ay information dañ nekk yoo xam ne boo ko tegee si da nga xam loo xam ne sax jërul nga dem di ko laaj dem di dem def ay recherche donc daf leen noppal donc pour waxal ne la ci ci processus boobu la ñu la ñu nekk ngir di ngir di gën a taaral ngir di gën a noppal nit ñi ngir di leen gën di mettre dans de bonnes conditions mm-hmm. donc pour aussi nga ne comité bi ñi ci nekk ay nit ñu xarañ lañu ñoo xam dañuy dañuy liggéey di jëfandikoo les outils les plus modernes mu nga xam ne moo am ci àdduna si ku mel ne euh, sëñ Abo yooyu moom moo koy saytu waa secrétariat ñoom ñooy dafa yu mel noonu waxtu bu nekk ñu ngi ne ñu ngi ne innovation yoo xamante ne bi ñëpp dañ ci dañ ci kontaan te loolu defuñ ko rek ak commission communication mbooleem commission yi lañ koy lañ koy defal commission bu nekk cen nañ ca nañ koy saytoo danañ ci indi xarala goo xamante ne bii bu noppee ñëpp ci am mbég. sëñ bi euh, mu mel ni daanaka waxtu yu mat na waaye ñu yëkkati plateau bi rek euh, benn question boo xam ne day jëm ci comité d'organisation bu Magal Touba ndax dafa am ñu jàpp ne des fois dañ koy laaj ñoom dañoo jàpp ne Magal Touba rek buñ duggee ci safar gi lañ koy tàmbalee waajal wala bu Sëriñ Bass tàmbalee recevoir délégation yi lañ tàmbalee waajal euh, Magal Touba gi comité d'organisation nan lañ koy nan lañ ciy liggéeyee ak nan lañ ciy liggéey ak état bi. loo loo loolu nit ñi mais boo jëlee rek wàllu commission communication ak culture xam nga ne mënoo recevoir juróom ñaari téeméeri nit ci ñett fan ñeenti fan loon dafa laaj waajtaay waajtaay wa waajtaay bu yàgg laaj nga jël wàllu sous commission culturelle nga def juróom ñett fukki waxtaan ak lu mat juróom benn conférence ak na guddeeg bëccëg nga dëkk ci plateau télévision yi ak si internet yi mënoo ko def ñetti fan ñeenti fan donc am machine la boo xam ne tey màgg nañ ba pare nit ñi bu ñu toogoo ba dallu dañuy toog def évaluation màggal gi naka lañ ko dunde yan rëq-rëq la am fan moo waroon dox te te doxut lan moo ko tee dox fekk booba commission bu nekk def na rapport naka la ko saytoo loolu buñ ko joxee coordinateur bi ñoom ñu saytu ko xool ko wàccaan yi nga xam ne mooy kilifa gi di njiit lii di sëñ Bas ci la ñu soo ko dajale de dafa ñett yu da nga dégg ñu ne am na réunion comité d'organisation loolu ñun rek ñoo ko yëg ndax ñu rek ñoo fay daje su commission yëpp dikk mbooloo yëpp dikk teew ñu commencé def ay réunion ak administration bi muy nguur gi boo gisee CLD bi bu ñu waree ba am ay fukki fan juróom njëkk yi ci lañu koy def buñ ca jógee ñu demaat réunion ak préfet demaat réunion ak gouverneur demaat réunion ak ministre de l'intérieur ñëwaat defar réunion tubaab évaluation ak ministre l'intérieur kon loolu mooy luñ seq ak nguur gi ci ci fànn googu beneen fànn gi ci sunu biir day am ay réunion intercommission dañ naan tey am na réunion boo xam ne concerne commission communication ak commission relation extérieure wala ñoo tey am na réunion boo xam ne concerne wàllu santé hygiène assainissement ak wàllu commission organisation commission yooyu nga xam ne ñoom dañuy daje parce que seeni liggéey am na fu mu duggante ñu war koo texantal war koo war koo leeral yow fi nga tàmbalee yow fi nga yem lañ war a ànd naka lañ koy ànde commission euh, réunion intercommission yooyu aussi dañ koy def ci teewaayu coordonnateur bi ak ci teewaayu secrétaire général kon pour waxal ne la liggéey bi liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu la mbooloo jeex jeexit moo ci nekk di ci liggéey boo jëlee rek aussi commission culture ak communication moom laay joxe exemple bi tey ji am nañ juróomi sous commission ci biir sous commission yooyu commi sous commission boo ko jëm lu gàtt gàtt mën ngi caa fekk lu mat trente quarante personnes boo ci antique mais ñëwaat ci commission bi yore wàllu hébergement ak restauration bi sëñ Moodu Mbàkke yor moom itam da nga ci fekk lu mat trente quarante cinquante personnes ndax toggul juróom-ñaar téeméer nit rek wàññi rek ñaata wàññ lay war a nekk dëra li ba koy def oto yoo koy yóbbu donc ñan ñoo koy taxaw buñ fa buñ nekkee juróom-ñaar téeméer nit ñooy aussi fa ñuy nekk ñan ñoo fay nekk di ko taxaw diin darab yi diin ni matlaay diin ni ndox nettoyé barab bi liggéey la li ñuy li ñuy li ñuy gis rek moo di ne eh, ku toog télé bi rek di def ab conférence am wala muy def présentation waaye fekk am na liggéey bu rëy boo xam ne moo nekk ci moo nekk ci ginnaaw nit ñi lu mat juróom benn weer du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg lépp rek ngir bésu Sëñ Tuubaa bi mel na war a mel tey itam loolu nit ñi dañ cee am mbégte mbégte la ci bu leen Sëñ Bass tànnee dugal leen ci liggéey bi mbégte la aussi ñu gis ne moom mi nga xam ne moom mooy président bi jiitu du nelaw guddi du nelaw bëccëg du noppalu muy métti encore ci ñu gis moom mi président bi lu ñu ko laaj nu mën a toll du ne xum day génn joxe lépp ngir bis bi jag donc boo amee lu mel noonu nag bu fekkee dara ci ngor mi ngi ci yow waroo noppalu lii mooy liggéey bi kon nit ñi noonu la lañuy la ñuy liggéeyee te nag lañ cay lañ cay dabb ak lañ ciy bëgg lépp rek mooy ngërëmul ki nga xam ne moo di moom Mouhamadou Mountakha beneen bi li am ñoo xam ne jàpp ne lu dul jeex moo ci nekk moytuma yi ngay dégg ak ak ak ñàkk xam fa la yem commission bi concerné budget bi xam nu mu toll xam nga ko trente millions trente millions ku la ko waxoon doo ko gëm li ngi ay centaine de la mm-hmm. boobu culture ci la bokk su commission culturelle boo jële wàllu intique ci bokkaat mu ñëw wàllu accréditation ci lay bokkaat ak restauration bi ci lay bokkaat doo xam nit ñi li ñuy liggéey maanaam naka lañ koy réussir ak ak ak moyens yi ni mu day mais loolu warut a jaaxal kenn parce xamul lu barkeel dafa gën lu bari te suñ duwaay mbirum dafa barkeel dafa sekki ba noppi moo loo ci ànd ak pas-pas rek dafa daal yóbbu commission yëpp ci condition yi la ñuy liggéey commission yëpp ci condition yi lañuy ñuy liggéey. waaye sëñ fu ngeen jële xaalis. suñ bas mooy financé. sëñ bas mooy financé. Hmm? sëñ le hmm? président moom mooy loolu ñëpp xam nañ ko. am na ñu ko xamul ba léegi daa mel ni. kon nañ ko xam tey. lu bari ci màggal gi moom ci poosam lay génnee. moom mooy financé ci comité d'organisation. jërëjëf sëñ bi ci leeral yu am solo yooyu mu mel ni euh, tax nga ba ñu bëree bëri lu leen lëntoon ci comité d'organisation bu màggal tubaa ñu xam ko mu mel ni li ñu cëraloon ci wàllu waxtu daa mat yan kàddu ngay yëkkatee jotaay bi. waaw kàddu yi moom ay kàddu yu cant lay doon kàddu yi kàddu yi cant moo koy def nag ci turu ci turu sëriñ bi di sant mbooleem ñi nga xamante ne bii rek def nañ seen loxo ci ci màggal gi di sant mbooleem ñi nga xam ne aussi ñëw nañ màggal si. Euh, di sant aussi euh, presse bi di sant itam ñi nga xam ne ñoom lañ seqaloon réunion yi ñu doon def la ko dalee ca chef de village ba ci ministre de l'intérieur ak président ma nga xam ne moom moo ko santoon mu jiite réunion yooyu di sant mboolem aussi kër diine yi ci li nga xam ne lañ ñëwee di sant suñu gan ñi nga xam ne ñu ngi jóge woon bitim réew def ay six mille sept mille kilomètres mm-hmm. ñëw ngir bésub sëriñ sëriñ Tuubaa kon daal kaddu yi moom kàddu yi cant la mm-hmm. gannaaw buñ sant gannaaw buñ sant la yàlla sëñ bu pare mm-hmm. ñoo leen di amee ak cant di leen sant nag yéen waa presse bi particulièrement ci seen taxawaay bu rafet ndax bari na foo xamante ne bii message bi àgg na fa mm-hmm. yéen a ko fa àggale loolu mooy li réalité ndax jumtukaay yi bu amutoon doo wax àdduna sëpp di la dégg te léegi mën ngaa toog fii wax nee naa ne ñu ne bitim réew ñoom sax ñoo ñuy gën a bàyyi xel ñoom ñoo ñu gën a seetaan ñoom ñu ci ëpp ay information yenn leeral aussi parfois daf ci daf ciy baax parce que itam nag dañuy liggéey di liggéeyal communauté bi kon képp koo xam ne taalibe nga rek jàpp nañ ne actionnaire nga ci te kon am nañu aussi euh, obligation ngir leeral la bu fekkee da bëgg ñu leeral lañ la war a leeral donc loolu lu lu lu la euh, parce que nit ñi aussi euh, ñu ci ëpp am am na yàqkat gaa mënut a ñàkk parce que cent pour cent amul mais li ci ëpp moom lu baax moo leen tax a jóg lu baax moo leen tax a jóg donc boo leen leeralee rek bu leeral seen bopp foog naa ne dara dara nekku ci kon daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu xam ne daal di ñaan yàlla ñu màggalaan ay màggal yoo xam ne euh, màggal yu yu dàq gi sax weesu lay euh, lay doon wante du yomb rek ndax màggal doon dafa dafa dafa dafa exceptionnel Ah, ak ci mbooloo ci ay xéewal nit ñi njaqare ñu amoon ñu dem waaye kenn ku ne màggal nga ba ba desal <laughs> loolu rek sant yàlla rek. <laughs> alhamdulilah. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne moo jiitee commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand màggal bu tubaa moom lañ doon dalal tey doon waxtaanee ak moom ci li nga xam ne moo jëm ci bilan Magal Touba édition 2023 bi. indi na ay leeral yu am solo waaye sëriñ bi yow dañ lay santaat bu baax a baax ñun di la gërëm ci turu presse bi yëpp ndax yaay suñu njaatigee ci comité d'organisation bi gis nañ ubbeeku gi gis nañ tamit euh, jàppandal gi ci liggéey bi nga xamante ni kenn ku ci nekk waxtu mu la yittewoo da nga ko ba la xam ne moom la yittewoo ci wàllum tasum xibaar ak communication bi mu am ci lu kayo njortam ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm waaye di sant tamit président moom Serigne Abdou Khadir ci liggéey bu am solo bi nga xam ne réussiraat na ko ren ji ci atum 2023 bi nam ko daan réussir ci at yu weesu ànd koog mboolem commission yi nga xam ne ñoom la bokkal comité d'organisation bi nga xam ne liggéey bi ñuy def Cheikhul Khadim lañ koy defal gis na lépp incha allahu rabbi ñuy sant tamit mbooleem ñi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ci bitim réew ci mbooleem plateau yi nga xam ne àndoon nañ koo yéen ci wàccaay wi ci màggal tubaa gi bii nekk après màggal muy bilan bi ñu santaat leen bu baax baax gërëm leen ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalifa général des mourides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 هماني هلا ماهن مال أبس والسفر Tawfekh jugee kenn xamul fu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot kon